Saliou Ngom alias Zos donc suñu présence fii du dara lu dul euh, soutenir Idrissa Seck le président Idrissa Seck bu xamante ne moom la ñëw pour sotenir nga xamante ne mosuñu arrêté pour soutenir ko donc j'espère que loolu moom mooy sunu souhait tey moo ñu waral suñu présence fii. xanaa Zos dafa ji daal di dugg ci bi. waaw non waaw bàyyi nañu seen bàyyi nañu bu yàgg donc fu mu toll nii euh, actualité bi ñuy wax mooy vraiment nu ñuy def ba jàppale euh, réew mi. ndax fu mu toll loolu mooy yaakaar naa loolu mooy base bi base bi actuellement non man ñëw ma en tant que garde dama ñëw en tant que homme politique dama ñëw en tant que leader parce que j'ai un mouvement qui s'appelle DMD jàppal ma jàpp donc moom laa doon soutenir le président Idriss Seck pendant les élections donc tey bi mu ñëwee tey rejoindre le président Macky Sall mun ma def lu dul rejoindre ko vraiment ci liggéey bi muy liggéey loolu sax moo waral nii tey le président Idriss Seck Euh, région le président Macky Sall ndax dañoo ne bu dee liggéey rek moo la tax a jóg buñ la woowee ci liggéey réew mi di nga ñëw tey amaana buñ ko woo woon mu bañ a ñëw c'est parce que dinañ ne intérêt personnel am lay top ndax daf ñoom politiciens yoo ne seen intérêt personnel lañ topp mais mu waxee taa le président Macky Sall ba mu wóor ko ni tey war na ko rejoindre war na ko jàppale ndax 2024 dafa sori tey ñaari fan rek boo toogee lekk am nga am problème tey bu ñëwee di jàppale le président Macky Sall ci liggéey bi vraiment ñëpp dañ ko war a saluer et puis ñu bàyyi le mot transhumé transhumé dafa mu ko utiliser ak fu ñu ko war a utiliser lii c' est juste que dafay rejoindre l' merci le pouvoir présidentiel ndax même au niveau des États-Unis bu élection jote ku ne day voté ku ko neex mais am na ñu ànd Macky Sall bi élection jotee voté ko vrai ou faux mais bu élection passé dañu war waruñu contre état boo contre état. da ngay déstabiliser tout tout tout tout le peuple te boo déstabiliser peuple bi euh, tout le le gouvernement bu gouvernement bi euh, wàccee bu amee bu amatulee doole ñun réew mi ñun ñoo koy yëg ñun ñi dañu war a xam loolu kenn du xeex état c'est dangereux il faut ñu soutenir le président Macky Sall fu mu toll nii ba 2024 ku ne buy am fu ñu for mu mu faraat feneen man sama réaction vraiment loolu la di leen gërëm di leen sant di leen wax ne on tout cœur avec. Idrissa Seck on est tout cœur avec son travail bi mu def avec le président Macky Sall